bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Mamor moom sëriñ Fàddilu mi sëriñ Muntaxa di taxawuloo njàngum alxuraan yi moo nu yónni ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko jële ci sëriñ Muntaxa moo wax ne mi ngi sant ñëpp ci bisub bi ñu weesu gis nañ ñëpp def nañ seen yitte ñëpp ba mbir ma yéwén na rafet na mat na sëkk sant na ñëpp gërëm ñëpp waaye ci woote bu njëkk ba da caa waxoon ay baat ne buñ àggee ci alxamis itam fu ko waaye mën a defe na ko fa defewaat loolu rek la bëggoon leeral ci ne suba ci alxames ji woowuñu kenn fenn kenn ku nekk fa nga nekk na ko fa defee bu dee jàkka la ña fa daan jullee ji nañ fa dem bu ñu mën a jàng benn kaamil sax ñu jàng ko kenn ku nekk sa biirum néegit boo fa mën a jàng sax xasida nga jàng ko bu dee këru Sëriñ Tuubaa la ña fa daan toog nañ fa jàng teg téere moom daal dafa bëgg fu waaye nekk di ko fa dund di ko fa dundal ànd ak jàng sa pastéef ak sa yitte teewlu sa xol la nga mën a tudd ci yàlla nga tudd ko yàlla bu dee koo xam daana ci kaw yoon ba mënta toog timu téere sax ne tudd yàlla ci kurusam kon dafay loolu buñ ko boolee lépp yéegal ko ci liggéey bu altine lépp di jënd benn liggéey boobu Serigne Touba ñu naan Serigne Touba nangu ko bu boobaa yiw adduna ak yiw àllaaxira xañ na ci liñ bëgg lépp tey yàlla xañ na ci sëñ Muntaxa mi ngi fasal sa fasaleel ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp sëñ Maam Moor it nee la waxoon nu taalib yëpp nu ñaanal sëñ Muntaxa mu àggale yéenam ci liggéey bi waaye kàddu yi rek lañ yónnee waatoon mooy xam ne njàngum suba moom woowuñu kenn fenn kenn ku ne fa nekk na nga fa teewlu defe ko fa mën a jàng sa biir nekk sab kaamil ba mu àgg nga def ko ko mën a jàng see xasida sa biir ne nga def ko ñu daan jullee ci jàkk jàkk jañ daan jullee nañ fa daje jàng fa ñu nekk ci kër sëñ Tuubaa it ne fa daan daje di fa toog nañ fa jàng lañ man loolu daal lañ bëggoon mu leer ñëpp ne woowuñu kenn fenn suba waaye nekk rek na nga fa teewlu jàng la nga daan jàng donte xam nañ ni ñi ci ëpp am nañ seen dog yu ñu daan jàng par bis dog yooyu luñ ca mën a yokkaat ñu yokkaat ko ca te lépp ñu teewlu lu defa ku delloowaat ko ñu ko ñu ko delloo lépp liggéey la ko Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi